يا gannaaw ba ñu tàmbalee suñu wax ci turu buur bi subhanahu wa di julli gannaaw ba ñu sante yàlla ba sax pare di julli di sëlmal ci yeneen bu màgg bi nga xam ne moom la yàlla yónni muy yërmaande mbool ñeel mbool ñeel mbooleem bindeef ak i ñooñam ak i sahaabam mbokk yi jaamu yàlla yi yàlla dafa wax ci alquran ne képp ku ragal yàlla yàlla dana la defal maxraj maxraj nag muñ ko buñ ko waxee mooy ab yoon ab buntu yàlla ci moo boobu noonu def ko maarifa maarifa mooy loo xam ne da koy tënk mu nekk loo xam ne lu ndaw lay doon comme yàlla dana la defal buntu boo jaar comme benn yàlla dana la defal buntu comme benn buntu bii rek nga ciy jaaree mais maxraj fii nii yàlla nakira la ko def mooy buntu yu baree bare képp ku ragal yàlla say buntu dafay bëri boo amee njàqare yàlla da la koy teggi boo amee problème yàlla da koy teggi loo bëgg rek yàlla da koy defal parce que lan la parce que da ngaa ragal yàlla foofu yàlla mu ne boo ragalee yàlla ba ay jaaruwaay ay bunt yoo xam ne xam ne yaakaaroo wërsëg gën amee wërsëg yàlla la lay wërsëgale te képp koo xam ne da ngaa ci yàlla na xam ne yàlla mooy sa wéeru waaye mu dëgër boo xam ne kenn mënul la dara ndaxte yàlla ci ngay wéeru yàlla moom moo lay xeexal ndaxte yàlla ay mbiram lu jotale la te kenn mënul taxaw ci kanamu mbiru yàlla kon aaya yooyu noonu moom la ñuy xutba bi te aaya yooyu rek moom la ñuy jàngal aaya yooyu rek doy na jàngal képp ku ko appliqué sa àdduna dafay dafay neex bu ñu waxee ragal yàlla nag ñetti mbir la lamb bu ci njëkk bi mooy ngay fuglu yàlla foo mën a toll xam ne yàlla mu ngeeg yow foo mën a ne beneen bi mooy nga tegu ci yoon bu ñu waxee nga tegu ci yoon mooy li yàlla digle nga koy def li mu nga koy bàyyi bu ñu waxee li yàlla digle nga koy def li mu tere nga koy bàyyi ñu bëri dañuy jàpp rek julli sëlmal woor dem mànta jeex mais yàlla dañoo digal buñ tooñ kenn yàlla dañoo digal ñuy jokk mbokk yàlla dañoo digal ñuy saraxe mais am na ñu bëri ñoo xam yooyu yëpp dañ ko def muy yu légère jàpp ne mbir mi yëpp julli woor dem màkka jeex na te yooyu mooy yu légère yi am importance na ci diine mais fexe ba boo amee àq kenn boo fiy jugee parce que yàlla li mu lay fay mooy koy defal yow mais boo fi amee nit àq boo demee yàlla moom àllaaxira yàlla dana ko dana yàlla ne ko ci yàgg waa ji yéen a koy yéen a koy lijjantil seen bopp kon fexe balaa nga fiy jugee gannaaw beneen bi mooy adamul adwan adamul adwan mooy comme li ma ko waxee ci gannaaw rek mooy ñàkk a tooñ bul noonu kenn bul tooñ kenn su ma waxee loolu nag damay ubbi benn ànd ak entre parenthèse ñun ñëpp xam nañ ne xew ci jamono jii nii ni ñuy bundu xataalee sëriñ daara yi ak ndongo daara yi parce que ñi koy def xam nañ lan moo tax ñu koy def li tax ñu koy def mooy xam nañ ne ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy dund liberté totale kenn mënu leen a jaamloo alxuraan noo ko jaam di nekk jaamu kenn munta ne moom la joxe ay exemple Cheikh Omar Fouti yi ñun ñëpp xam nañu mais su ma waxoon fii benn Ablaye Ndiaye est-ce que xam nañu mais Cheikh Omar Fouti yi ñun ñëpp xam nañu lan moo tax ñu xam ko ndongo daara la woon Alaaji Ablaye Niass ñun ñëpp xam nañ ko lu tax ñu xam ko ndongo daara la woon Alaaji Malick Sy ñun ñëpp xam nañ ko lu tax ñu xam ko ndongo daara la woon Serigne Touba ñun ñëpp seen liggéey am na fu bëri fu mu yegg ci àdduna bi ñun ñëpp xam nañ leen te ñun ñëpp ay ndongo daara lañ mun nañoo toog di lim ba takkusaan jot duñ jeexal fii ci Sénégal te ñooñu dañ defal Sénégal amul benn doomu aadama ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo taxaw tey tey di xeex daara ñoo xam ne dañ koo defal Sénégal amul te ñun ñëpp nag nee nañ dañ leen a bëgg dañ leen di roy mais dañoo bàyyi seen yoon parce que seen yoon mooy la mooy. comme li ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale mu ne ko gën ci yéen mooy ko jàngale alxuraan ba pare di ko jàngale mais yow jàngu alxuraan mënoo ko jàngale mais da ngaa war a dimbale ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jàng di ko jàngale yow loolu mooy sa wareef loolu mooy sa rôle mais ñun sénégalais yi dañoo tegg loolu teg ko fële kenn ku nekk nag di xool leneen loo xam ne moom mooy ay intérêt yoo xam ne ay intérêt maddi la aduna kese amul benn importance que loolu la ñuy fekk ñu bàyyi ndomba yàlla dana ñu ko laaj buñ bëggee nekk nit ñoo xam ne ñu libre la ci esprit libre ci àdduna il faut ñu xoolaat suñu bopp ci domaine boobu noonu parce que fiñ bëgg a yem yem yemale àdduna bi loolu ñi nga xam ne ñoom ñoo leen mën a opposé ba duñ fa dem mooy ñi nga xam ne nii dañoo jàng alquran ba pare di ko jàngale wala dañoo jàng alquran ba pare di ko gëm ñu dul ñooñu mënuñ ko def mais nag ñi nga xam ñu ci yoon boobu noonu li ma leen di wax moom mooy li aaya wax wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbu inna allaha balighun amra képp koo xam ne da ngaa wakkiirul ci yàlla yàlla moom mooy ki xeexal man noonu laa koy firi yàlla mooy ki nga xam ne moo lay résister parce que mbiru yàlla yegg na fa jëm te amul kenn benn doomu aadama boo xam ne mën naa taxaw ci kanam yàlla wala taxaw ci loo xam ne yàlla dogal na boo pare ku koy jéem na essayé ñi koy jéem nañu essayé ñun ñëpp xam kon képp koo xam ne yaa ngi ci yoon boobu boo amee ay mbokk dañ la dañ la dañ la biir nga jóge ci parce que buñ la laayoon biir ci rëccu rek nga jëm buñ gisee nit ñu respecté ko ci àdduna fii nii dañuy gis koo xam ne dañ koo respecté mu am personnalité ñu wekk ko ay temps gis nit rek nga ne ah kii de man lan moo parce que nekk ci moom la mun gis koo xam ne dafay yor lu dul jeex nga ne ah diw man alalam ji rek laa ko toppee boo ko waxul ci biir mun naa boo ko waxul ci biir yaa ngi koy wax ci biir man alalam ji waaye man moom laa gën a jéppi moom laa gën a sib moo tax parce que dafa ragalul yàlla moom moo tax kon boo buggee nekk nit koo xam ne ñëpp dañ la nawloo bëgg la wekk la da nekk koo xam ne ngaa ragal yàlla parce que booy ragal rek yàlla moom mooy def loolu ci yow moom macha kon borom bi subhanahu wa taala am na yoo xam da koy wax ci biir alxuraan yi mu jëm ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ragal yàlla benn aaya mooy inna lil muttaqiina mafaza ñu ragal yàlla dañuy am lan dañu am ak ngañaay ngañaay mooy lan mucc ci safara dem àjjana ba pare dañ koy am aussi tam ci àdduna duñu am benn problème ñooñu ñan ko am al muttaqin waxut inna lil musallina ñi ragal yàlla mais nag muttaqin julli da ciy bokk woor da ciy bokk mais nag ñi ragal yàlla ñoom la beneen aaya bi mu ne alaaxira yàlla da leen a jox teraanga goo xam ne ba muy wax sax ci aaya bi daf ne wa uzlifatil jannatu lil muttaqin waxul dañuy jël ak dañuy jël ñi nga xam ne ñoom ñoo ragal yàlla dem jegal leen àjjana de mais àjjana dañoo xëcc mu jege si leen parce que lan dañoo am karaama màggte yàlla weg leen xëcc àjjana mu jege leen parce que dañoo ragal yàlla wala ñu ragal yàlla ñoom ñoo ko beneen aaya bi suratu baqara yàlla mu ne alif laam miim zalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan lil musallin hudan lis saayimin hudan liman lil muttaqin lil muttaqin téere bi alxuraan balaa nga koy comprendre aussi tam il faut nga nekk koo xam ne dangaa ragal yàlla yàlla koo wàcc mu nekk njub ñeel ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko ragal waxtu bi mu ngi dem benn xisa rek laa leen di ci xisa yi may wax benn bi benn bu mag a téere bi mu bind am na benn téere bu mu bind mu ngi tudd funoon ci l'islam téere bi ko gën a rëy amul parce que mu ngi toll ci huit cent tomes huit cent tomes imam boobu Mu'tazila la woon génn ci nekk Hanbali dafa dem Màkka for benn càq boo xam ne ñu ngi ko gawee càq or la ko or bu rëy ñu ngi ko gawee benn morceau bu xonq mu dégg benn gumba boo xam ne mu ngi màggat lool di ko laajte naan waaw kan moo for sama càq bi kan moo for sama càq or bi ku ko for danaa la jox xum su meex dinaar xum su meex dinaar alal yu bare bare la ay parce que loxo ku sàcc ñu koy daggee ci nisfu dinaar benn dinaar koo waral mu ne sama chaîne ku ko gis danaa la jox xum su meex dinaar mu ne ko maa ko for chaîne nii mu ne ko xum su meex mu ko jël te bu ko neexoon mu jël ko charia charia nangu la loolu waa ji toog ci jamono ji toog màkk ba mu paree aj mu dem dëkk bi ñuy ba mu fa demee xiif jàpp ko lool weeru koor gi commencé ñu fekk ko ci benn zaawee ci jumaa ji ñu ne ko dañoo bëgg nga ñëw jiite ñu parce que suñu bi kat dafa génn àdduna mu ñëw naafila leen julli gi neex macha allah ay muy jàng dafa mënoon alquran ñu ne ko ah ñu dañoo bëggoon nga toog fi jiite ñu ba weeru koor gi jeex mu nangu bañ demee ba ca digg weeru koor la ñu ne ko ah ñun de am na benn jirim boo xam ne mu fi papaam moom moo nekkoon imam bi dafa génn àdduna dañ la kaa bëgg a may soxna mu xaw a kii ba mu yàgg mu ne waaw baax na mu nangu parce que ba mu ko xoolee xam na ni kooku moom it ku ragal yàlla mun naa ànd ak moom mu jël ko soxna yàlla may leen benn doom ñu dem ba mu yàgg ku jigéen gi feebar ni mu toogee fekk mu ngi takk càq bi nga xam ne nii moom la faroon ca ca màkka waa ji di xool ceq bi di xool ceq ba mu yàgg ak ku jigéen gi ne ko waaw yow yaa ngi xool sama ceq bi rek lan la mu ko li haadihi al-uqda qissa bi nga takk dafa am qissa bu rëy rëy bu ci ah, mu ne ko man ceq bi dafa mel ne moom am góor xam ne dafa doon laajte ceq bi kan moo ceq sama ceq dafa réer kan moo ma ko ko man la man maa ko xoroon mu ne ko sama papa dafa waxoon da doon ñaan dundam bi ba mu ñibbisee màkk ba nim génnee aduna lim doon ñaan mooy sama doom jigéen bi nga xam ne moom rek laa am ci aduna yàlla ko yàlla may borom kër bu mel ne ka foroon sama càq ba ca màkk sama sama ñaanu papa googu mu nangu na kon yow la li tax mu ko doon ñaan parce que dafa gisoon ci yow ragal yàlla kon mbokk yi nañ ragal yàlla nañu ragal yàlla nañu ragal yàlla parce que képp koo xam ne ragaloo yàlla da ngay perte ci aduna bi yàlla nañu yàlla may ragal yàlla dañ ñaan yàlla mooy ki nga xam ne yi gannaaw ba ñu tàmbalee suñu turu bóor bi subhanahu wa taala di julli di sëlmal ci yonent alayhi wa sallam dañu delloo borom suñu bopp ci borom bi subhanahu wa taala kenn nekk walla bés ba nga xam ne ni yàlla dana taxaw ne kan mooy buur bi tey balaa bés boobu di ñëw kenn ku nekk war ngaa réglé war sa bopp te kenn ku nekk nag mun ngaa réglé sa bopp bu fekkee taxalee dafa jeex rek kenn ku nekk bu taxawee mun ngaa xam ne yow est-ce que yaa ngi ci li la yàlla digal wala yaa ci li la yàlla tere kenn ku nekk bu taxawee ak boppam rek sans leneen li ci am mun naa xam loolu bés boobu yàlla bi nga xam ne mooy gis yoo bi nga xam ne mooy tàllal yoo bu tàllaloo ci mu lëndëm crise yàlla mooy gis deret ji ni muy dalee ci biiram yàlla mu ngi gis loolu yàlla moom nga xam ne xam na leen kon war nañ ñi sóoraale ay bu baax a baax bés boo nga xam ne danaa ne kan mooy buur tey kenn du mën a tontu parce que kenn ñemewu ko mu ne nguur tey man maa ko man kese man maa moom nguur tey amul tooñ duñ fi tooñ kenn kenn ku nekk danañ la régler li nga jëf kenn ku nekk danañ la régler li nga jëf ci mandute kon day amul tribunal boo xam ne ay a dañ fay nekk di àtte lu leen neex njubati wala def ndëngate déedéet tey tribunal bi benn tribunal la moom mooy tribunal bu borom bi subhanahu wa taala tribunal xam ne borom bi subhanahu wa bu oowee jàmbi ci turam ne ko kaay taxaw mu ñëw taxaw ci kanamam jàmbi li muy njëkk a wax yàlla pourquoi yebaloo wala waxoo ma bés yàlla li mu koy tontu mooy wax naa la bés bi dana ñëw parce que doon nga ko jàng 17 fois fukki yoon ak juróom-ñaar ci faatihatul kitab ci mooy rakk yi julli chaque jour doon nga ko jàng fukki yoon ak juróom-ñaar ci lan maliki yawmi diin maliki yawmi diin buuru bés penc mu ne ko tey nag mooy yawmi diin tey mooy bés penc te man maay buuru mu ne ko lan moo tax yebaloo koo xam ne moom may wax bés bii nii mu ko an kay laqad jaakum rasulun min anfusikum yebaloon naa ab ndaw bo xamne ci yeen la baye ko pour ñew wax leen la moy diine ji te ko ku ci xëloon la ñepp xamne yeen yéen bi ku xëloon la ko ñeen ñepp ñu ko àjjana mais est ce ñu def li ñu war ko dugg àjjana jaam bi borom subhanahu wa taala gennaw ba ko ba nga xamee wax na ko lool mu ne ko léegi dañ may baye ma woo ay sédé ño xamne ne dañuy ñëw seedeel ma mu ne ko bés bii li fi sédé moy làmmiñ sa làmmiñ bi mo lay seedeel sa loxoy ak sa tanki ñom ñoy ñooy li nga xamni ni mo moom nga doon jëf yëpp ndaxte tey danañ fay kenn ku nekk ak payam ba mën sëpp te ci wañi lenn jàmbi borom bi subhanahu wa taala bàyyi mo mu woo benn avocat mu ñew ñew ñew pour mu ma défendre mu ne ko iqra kitabaka kafa bi nafsika yawma hasib alayka hasiba jàngal sa téré jëf bi wala mu tégal la sa cassette bi nga xam ne la ñu doon filmé cassette bi moom lay tégal nga visionné lépp xam li nga doon def lépp ak li nga doon bàyyi kon iqra kitaabaka kafaa bi nafsika al yawma alayka xasiba nga wax yàlla kon léegi bàyyi ma ma fay bàyyi ma ma fay alal wala ma fay kenn ci sama doom yi mu ne ko maa ngi wadd mu ne ko yàlla ne ko yow ma laa yanfa'u maalun wala banuun tey alal du fi jëriñ doom du fi jëriñ illa man ata allaha bi qalbin salim lu doon nga ñëw ak ak yàlla ak xol boo xam ne xol bu wér la pas xol bu pas xol bu laaj comme ni ñu koy waxee dañoo xam ne non yàlla xol bu laab lay seet yàlla xol benn xol bu laab amul kenn ku amul xol xol xol bu baax yàlla li muy xol mooy xol boo xam ne dafa set bu set wecc kenn ñëwee kenn du tax taxaw naan man ma xol bu baax ñun ñëpp koo ci ne la man bu baax laa yor ñun nag Sénégal dañoo tàmm yàlla xol bu baax lay fay loolu de salim la wax xol bu wér xol bu wér nag ñun ñëpp xam nañ li koy joxe bu taxaw ne yàlla. léegi comme que atte nga ba pare man mii xam naa ne sama sama li ma def dara baaxu ji léegi dañ may bàyyi ma ma ma ma ma ma def appel ma def appel comme ni ñu defee ci tribunal yi mu ne ko maa ngi baddalul ma ana bi sallallahu man samay wax te man du ma nekk koo xam ne damay tooñ jaam yi kon fan lañ jëm fan lañ jëm kenn ku nekk war na di xalaat loolu bés ba nga xam ne yàlla dana taxaw ne jahannam est fees nga mu ne ko est ce que am nga yang ku naik war a di xalaat loolu Tirmizi dafa solo benn xadis boo hadis ne xadis bu nyata la mu ne xam ngeen ñaata at la yàlla ya taal safara yàlla taal la safara junney at ba safara xonq curr mu taalaat ko junney at ba mu weex tàll mu taalaat ko junney at ba mu ñuul kub safara dafa ndax yu bi dafa ak yi ñu bis bu ma amuree teel yonent bi ne leen xam ngeen loolu lan la saaba yi ne ko yàlla ak yonent bi ñoom ñoo ko xam mu ne leen loolu benn xeex la woon boo xam ne dañ koo sànni woon ci buntu jahannama mu war a dem ci suuf bañ ko sànneeg léegi mën na soixante dix ans juróom-ñaar fukki at mu ngi doog a yegg biir safara ndax xóotaay kon war nañoo ragal yàlla war ragal yàlla ragal li nga xam ne nii moom lañu moom lañu moom moom lañu di yàlla ñu may àjjana mais yàlla ñu musal ci safara ndaxte lii la qawlul fas waxat yoo xam ne wax mu feccali ko la lu dëgg la loo xam ne ay ay ay ay ay la kenn nekk nag ci di ci bàyyi bàyyi bàyyi xelam looy def war nga di ko xalaat bu koy def parce que xam ne yàlla mu ngay gis te malaaka kon ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala ñu yàlla musal ci safara te yàlla may ñu aljanna yaa man ilayhi jamia xalqi yabtahilu wa kullu xayrin ala rahmahu yabtakilu يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت السرى وحجاب الليل مندسل أنت المنادى به في كل حادثة وأنت ملجأ من داخت به الحيل أنت القياس لمن سدت مذاهبه أنت الدليل لمن دلت به السبل إنا قصدناك والآمال واقعة عليك وكل ملهوف ومتحد فإن غفرت فعن تول وعن كرم وإن سترت فأنت الحاكم العدل عباد الله يقول الله تعالى في كتابه العزيز إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله يا